asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dellu si waat nañu ak yéen ci pirim oqal bukaahu mi ñu doon def xam ngeen ne waxoon nañu leen ne Serigne Touba nee na tarixa li muy tekki mooy xasdu waj illaahi bil ibadaati wactinaa bil hawa tarixa mooy jaamu yàlla gi ngay def nga def ko ngir jëmmi yàlla te nga moytandiku bànneex bakkan ak seytaane ak duniya loolu nag bu dee loolu la tarixa di tekki salafis bi nga xam ne mu ngi jaar ci shari'atul mu mutahara te di ko rafetal boole ko ixlaas te jëmmi yàlla rekk tax mu di ko def bu ca boolee bañ a topp ba kanam moytu seytaane àddina mu ngi ci tarixa bi allahuma sàkk sa tur nag kum neex def ko ndax kon mu ajiri na duñ tudd mu ajiri na lan saar du lan saar sàkk sa tur moom kum neex def ko waaye mu ajirina yi ak saar yi yépp ay jullit lañu woon ñu gëm yàlla te ku nekk da ngaa amoon sax ràññeekaay waaye nag ràññee googee ndaxam demoon na ba bëgg a def ni tarixa yi ndax ba yonent bi génnee àddina moom mu lansaar yi dañ na ñooy jiite mu ajirina ñooy jiite waaye ñoom dañoo dégg diine dañoo di nangu diw daal di juboo tarixa yi ci réew mi nag moom dañoo déggul diine na saaba ya moo tax seenu ànd yombul waaye képp ku fi nekk daal nga gëm yàlla gëm yonent bi jàng sharia jëfe ko te la ngay jëfe ca sharia jëm yàlla rek tax nga di ko def boo ca boolee moytu seytaane ak bakkan ak dunia ak bànneex yaa ngi ci sa tarixa bu la neexee nag nga tudd nu la neex waaye li nga nekk moom ak la leen nekk benn rek la Sëñ Tuubaa nee na tarixa boobu nag dafa am ay ay ponk ponk yi mooy tuub ragal yaakaar jàq ci sa mbir daylu dëddu àddina teet waakirlu muñ jaar sa bakkan sant yàlla gërëmloo ko te bañ di di ngat bañ a xool li nit ñi nekk ndax boo ko dee xool dañuy day dox multasfitun laa yasil multasfitun laa yasil kuy geesu jëf jëfi nit ñi doo gis sa borom loolu mooy usul yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne tarixa bi di dégg bu ngeen ko déggee defe ne gaynde gu wàcc la guy fàdde loolu dong day moo di ay ponkam tuub ragal yàlla yaakaar ko jàq ci sa mbir bañ a naagu euh, jox naa ko ñoom ñoom ñële xaadim demal ca ñoo ne laaj leen ko dañ la ko jox bañ a naagu ci seen mbir doylu dëddu àddina teet wàkkulu ci yàlla boole koog muñ te jiyaar sa foo toll boole koog sant yamalu ala daawuda shukran boole koog rida radiallahu anhum radu anhu boole koog adamul iltifaati ilal xalti xalqi yaltafit minkum ahad nga bàyyi iltifaat ilal xalqi ndax nit ñi ku leen di xool da ngay jàkkaftalu te dégg fa nga jëm loolu de moo di tariqa bu de loolu moy bida nak kon alquran alxuraan bi da lay doon ndax li moy wax ni yëpp dama baña gat dama baña bañ a guddal waaye lu nek man la ca indir aya aaya ndax bi ma tarkul tifati ila alil bariyaati dawal ne wala yaltafit minkum ahad tariqa sin bi dafa wax ne dafa am ay kay ay lawasin modi jublu qasdu ak dalilu ak zaadu ak silaahu ak siraaju ak matiyatu ak okaasu ak isaamu ak min aaju ak rufqatu almaru ala diini qalilihi falyanzur ahadukum man yuxaalil mboolem yi ñu wax fii yépp boo demee ci addis fekk ko fa te Sëriñ Tuubaa nee yooyu mooy la waa simi tarixa loolu mooy liñ fi jàngoon bi ñu noppee ci loolu jàng nañ fi mala yi nga xam ne moom la Cheikh Mourabin di melowoo ba mu jeex tey nag ñoo ngi dale ci ulaayika alqawmu laa yashqa jalisuhumu iz yaksibuuna almuridiina saadaati foofu mooy fi nga xam ne fi lañ war a dalee tey sunu leson nga xam ne da ciy wax mboolem may yi nga xam ne nit yàlla yi am nañu ko ak jikko yañ jikko woo ba yàlla defal leen may yooya loolu moom lay lim borom bee ulaay kal xamulaay xaajalisi umoo is yag si buunal muridiina saadaati mu ne ulaay kal xawmu su yasqa jalisi umoo is yag si buunal muridiina saadaati tuubaali abdin muridin saadixin la umoo bi xidmatin aw bi xubbin aw adiyaati maanaam loolu da koo dugal muy benn muy muy ñaari bayit mu door dugg nag ci nit yàlla yi li ñu am ci yàlla lan moo leen ko may mu ne walaayil xel xawmu woowale gaay day yooyale gaay laa yashqa jalisi umoo ku toogandoog ñoom doo texee di ngir lan ngir ñoom yegg si boonal muridiina sa àddaati la ñuy fàggul képp ku namm yàlla moo dee texe àddina ak texe alaaxira kon tuubaale abdil muridin saadixin la umoo texe ñeel na bépp jàmb namm ci yàlla boo xam ne dëggal nga leen bi xidmatin moo xam ci liggéeyal leen aw bi xubbin wala ci bëgg leen aw adiyaati wala ci addiyal leen am na mbokk moo doon laaj ne ma Serigne Touba day wax ne ku ma liggéeyal nii ku ma liggéeyal nii ku ma liggéeyal nii waaye fii nu toll ci jamono ji naka la ñuy liggéeyale Serigne Touba dinaa la ko tontu su ma eggalee ci lii may def fàttewuma ko danga ma noon nanga ko yóbbu ca mbooloo ma te ma xam ne leçon bi ñuy jàng te ma def cee bokk moo tax ma noppi ne patt waaye nag fàttewuma la waaye fii nag la sëriñ bi di waxee ne guur yàlla yooyu li tax ku ànd ak ñoom doo texee di waaye dangay ngay texee guur yàlla yooyu lan moo tax ku namm ci yàlla te dëggal te dëggal am na ku ma ko jox ci liggéeyal leen ak bëgg leen ak addiyaan leen te xeñeel na xam nga almar uma ahaba baat yi ngay gis baat bu ci nekk mooy xidma ak xubbu ak addiya dafa doy waxtaanu weer mbaa ko ëpp loolu moo tax bugguma ci dugg ndax kon danañ am at kon kon uqa day mel ni ku firi alxuraan ñaar yoon te loolu laa ciy daw waaye dinaa ci leeral dara su ma eggalee ci leçon bii léegi nag sëriñ bi di wax ñooñu nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ku toogandoog ñoom bëgg leen liggéeyal leen addiyal leen di nga taxe yett la boole yett la boole xidma hubbu hadiya waaye waxul ne xidma rek kay tax dem fi nga bëgg dem ne wut addiya rek kay tax fi nga bëgg dem xidma hubbu hadiya comme iman l'islam l'ihsan noonu laa ko mën a misaale hubbu nag day ànd ak maiya almaru ma aman ahabba ca jikko ya ca ragal yàlla ga ca xam-xam ba ca yang lengkap cemano ca maandu nga ca ca ca ba ca ya jeex soo bëggee nit danga koy topp ca la mu ne loolu mooy bi li leen lay wax par ben. nena naa loo bi xabri rasulil Mustafa rutaban sala alayhi lesi, yu'til masiyati. Nalu bi xabri rasulil mustapha rutaban salla alayhi lazi yotil masiyaati da ngay deltu ginnaaw wal kullu min jumlati saadaati surutabin yakful murida maridan sa xawaayaati boo demee ci wal kullu min jumlati saadaati surutabin nga ñëw nag ci naaloo bi nga xam ne kon martaba yooyee muy wax ne gaa yi amoon nañ ko ca wal kullu min jumlati saadaati surutabin martaba yooyee la leen ko may khafu rasulil Mustafa mo len ko may lolo taxon man len waxi Sëriñ Tuubaa ak wax alquran ñoo niro ci ni ñuy tegalooyee sëriñ bi lepp lu mu wax fi ma nga lay dak fenen dina ko fa dina ko fa leral gaay bax yi de am nañu martaba yo xamne ni ni ni ni ba mu dem ak mu dem martaba ye ñu am nak li ak li ak li ak li ak li ak li ak li mo leen ko may kon martaba yooyu mu ñu ñu am. ci wal kullu min jumlati saadaati suurata bin yektil murida maridan saxawaayaati rutaban yooyu la leen ko may lay wax mu ne martaba yooyu mën a wal kullu min jumlati saadaati suurata bin la leen ko may xafi rasulil mustafa moo leen ko may naaloo amee nañu bi xafi rasulil Moustapha ci roy yonent bi topp ko rutaban martaba yooyu ma doon wax ne. Eh, eh, yakfir murida marida saqawayaat yi sallaane yàlla julli ale yi ci moom Moustapha moomu àll si yàlla mi nga xam ne yowtil masiyaat yi mooy maye ay may ñu ne ko waaw ci loolu rek lañ ame martaba yi mu ne déedéet naaloo bi xafi la si jaa al aminu bihi ale iminu salaati kula saati martaba yooyu nga xam ne yakfir muridin an waa shaqawaati li leen ko may mooy topp li nga xam ni jibril indi na ko muy alquran naalu am nañu martaba yooyee bi ba tax ku leen topp sopp leen bëgg leen gan dem àjjana ma bokk na ca la leen ko may xafi la si ja al aminu bihi la nga xam ne moom la jibril indi muy alquran dañ caa topp def la mu bàyyi lam tere aminu googu nag mën naa tekki jibril waaye aminu gii moom muhammad lay tekki na sala alay alay minu salaat yi moo moo tax nga xam ne nga xam ne amin sural amini sural aminu ma al amini foo al amini waaw amin yooyu yëpp benn du ci benn ak sama waaye aminu bi nag muhammad la mu ne naaloo am nañu bi xam yu la sii ca topp la nga xam ne jaa a dikkee na ko al aminu aji wóor jëte mooy alxuraan ja muhammad indi sala alay alay minu salaati kula saati alayhi min usal jaa al aminu bii alayhi min usalaati kula saati jaa al aminu jibril dikkee na ko bii ca loola alayhi ci yonent boobu minu yàlla tukko ci yàlla salaati sama julli kula saati waxtu bu nekk kon topp alxuraan moo leen may martabaam ñuy mën a fegal murid murida maridan sa xawaayati minal manaaxibi maa yate bi xalamun wala lisaanu bi xatin awi kaayati li nga xam ne nag mooy seen i gànjar mooy seen i takkaay moom lañ di xàmmee moo di seeni may am na ci loo xam ne xalima mënu ko làmboo wala làmmiñ du caage nag bind du caage nag nettali maa yate bi loo xam ne mi ne manaax bokk na ca may ya maa yate bi loo xam ne du ko làmboo xalamun xalima wala lisaanun wala aw làmmeñ bi xattin ci mbindam xalima ga aw ikaayatin wala nettali làmmeñ wa ñu ne ko waaw ginnaaw yow lii moom xalima mënu koo bind ba mu jeex làmmeñ mënu koo wax waaw doon na ci mosal tuuti doon ñu mosal tuuti ci loolu boobu mu ne min ha bokk na ca ne mënu ma wax lii min ha bokk na ca atabaxuru géeju fi almi shariati ci xam-xamam sharia kon ab sufiyanke bu jàngul sharia ba peeg ko ab dofiyanke lay doon waaye dina ab sufiyanke ma ay mel xaqiiqati mu ànd xam tasawuf min xabl riyaadaati bala moo tàggatu dina ma ci boroomam isirtiyaadul ma irsaadi qablahuma min jaalibaati xuruuril mashaqawaati ndax amoo xam-xamab sharia amoo xam-xamab xaqiiqate mooy lixsaan mooy tasawuf ngay tàggatu ne da ngay dem ci sa borom loolu moom waruloo nga ak texee di moo la cay fekk ndeysaan léeg-léeg nga gis nit koo xam ne du peñe bopp ba day da ba daax yére ya du yi dàll du sangu naaj li mu tàng tàng tàng tàng ma ngay fandaañu naaj wa nekk ci alkanday àddina ne day def irtiyaat te amul ilmul sharia amul ilmul aqiqa moo taxit xuruur nag saqaawaat rek nga ci am da ngay am ak waru soo dee la nga foogoon du am saqaawa ngay am fii tamit ndax ci coono ngay dëkk bokk na ci li nga xam ne guur yàlla yi sañ a yare jëm ci yàlla dañ koy peeg tawaqufu an xawlin wa an amalin attaayara wu sayin bi saadaati min a bokk na ci ngay ràññee nitu yàlla tawaqufu ak taxawam an xawlin ci wax wa an amalin ak jëf attaayara wu ba gis wax ak jëf sa ihan di lu wér bi saadaati ci ay seere yu jóge ci addis wala mu jóge ci alxuraan ñu ne ko ak lan mu ne min atalaasi ma xawfi laay bokk na ca la nga xam ne moom moom la nit yàlla di taqoo mooy ragal yàlla boroomam ca ba muy tàmbali ak ba muy eggale xaalal bidaayaati ma alini ayaati ba muy dalee sóobu ci yàlla ba muy egg ci ngërëmal yàlla isfil bidaayaati xaw fa seen bias yes juluum bu ñu door a sóobu ragal bàkkaare tax ñuy jaamu yàlla tey moytu wa fi nañu ayaati jilaalu jalaati bu ñu demee nag ba egg ci taw it xaqiqatu taw it bu boobaa loolu la um, gone yi di wax egg ci yàlla mooy mooy xam mooy mooy xam yàlla mooy mooy wéetal ko su boobaa jaamu yàlla ga màggal lay doon moytu mooy ga it màggal lay doon ndax day xam yàlla mooy tax min atasimu an bi nafsi duna riyan min kaw ni a e, min kaw ni azata makrin wa xiyaanaati bokk na ci jikkoy nit yàlla ki ñu war a topp day màbbu bakkanam di ko tàggat duna riyan te du ci boole gistal min kaw ni a ni nekk ndax nekku bakkan zaata makrin di borom yi pexe yi bon wal xiyaanaati ak i wor bokk na ci jikkoy nit yàlla yarawna anfusahum duna war a abadan wa annahum lam yaliqu bil dañuy gis seen bopp ñu gën a suufee ci mboolem mbindee fi faaw lu ñu màgg màgg dañuy suufeel seen bopp ba mel ni sax ñoom yeyoowuñu ay karaama waanam asfaxul fu saaxi kulli umo waanam lam yeli nee na ñoom dañuy gis seen bopp ba mel ni ñoo gën a saay saay saay saay yépp dañuy suufal seen bopp ba mel ni lam yaliqu bil ijabaati bu ñu woowee ñaan si yàlla du ko nangu min an talaasumu sabrin lil ilaahi ala jarul isaati jamian wal musibaati xam nga la dina wax ca usul ya mi ngi koy indi di ko dab di ko dugalaat ci biir jikkoy mag ñi bokk na jikkoy nit yàlla talaasumu sabrin ànd ak muñ lil ilaahi ngir yàlla ala jarul ca ndëng ak wayi mooy kat yàlla ya lay tooñ jamian boole seen wal musibaati ak musiba ya kaanoo isaa naaba um min nahwihim dararun taabu ilallahi min kusri xatiaati seeni jikko bokkoon na ca buñ demee ba ay lor gaan leen dañuy tuub dellu ci yàlla jàpp ne nun yi kat noo def bàkkaar yu tax lor yi dikk waaye lor yi jegewul ci ñi ñi lor ci suñuy bàkkaar la jógee foofu la ñuy yem boo légee juróom fukkeelu bayit ak juróom la ñuy jël mu yowmul manaqibihim Euh, léegi nag euh, l foofu la ñuy yem tey ci isfil bidayaati xaw fu zan bi yes juru um ba fit ni ayaati ijlalul jalalaati léegi euh, boo gisee li ma bind ci suuf nag dama bind ne amal aqsaamul ashrati fa kullu qismin min a tanqasimu ila ashrati maqamatin wa lidalika al majmuu yusaawi alfa maqamin ibtidaan min al bidaya ila nihaaya maanaam baat boobu sëriñ bi wax na is fi bidaayaati xaw fu seen bi yes juru um wa fi ni ayaati ji daalu jëlaalaat yi mooy taabal yooyu ma leen di bindal te bàyyi ko ci kaw léegi nag xismu yooyu fukki xismu la fukki xismu yooyu benn bu nekk fukki maqaama ñoo ñoo fa nekk waaye fukki maqaama yooyu fa nekk benn bu nekk dafa làmboo yeneen eh, juróom yeneen juróom-ñeent ak moom fukk bu ci nekk fukk la taxawe moo tax bu fekkee ni fukk bu nekk fukk la taxawee te muy fukki xaaj yoo xam ne xaaj bu ci nekk fukk fa nekk fukk ku ci nekk fukk nga taxawee junni lay doon xaw naa jafe nag ci ni ngeen koy déggee waaye su ma ko faram fàccee incha allah dina leen leer foofu la ñu yem bu subaa ñu tàmbalewaat ci isfil bidaayaati xawu seen bies juróom ragal naa ne nag pour ñu romb isfil bidaayaati te leeralu ñu loolu lépp moom ah, du yomb il faut ñu bind aqsaam yëpp ba ngeen xam ko xismu bu nekk ñu génne ca benn benn boobee la muy doon ci bidaayaat la muy nekk ci abwaab ah, la muy nekk ci ah, muamalaat la muy nekk ci ba ba muy jeex noonu lañ koy topp bu ñu eggee junni yëpp dina génn incha allah